abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot ay xibaar yu wér aju ci réew ak ci bitim minni llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali nafa li gayri llahu qablu sindari bi ahli badini l usuudi kadari salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki taalibe yi bokki jullit yi yëpp Cheikh Mouhamadul Mountakha mi ngi leen di nuyu fu ngeen mën a ne xam ngeen ne bis bu tedd bu màgg boobu nga xam ne mooy ci fan ak juróom-ñett yi nga xam ne ci dañ jëm bis boobu nag xam ngeen ne saa soo xamee ni ñu ngi koy jub di ko waajal ñaari sëriñ bi dana am kàddu yoo xam ne da koy jëmale ci mboolem taalibe yi yëpp dema ko ci mboolem julit yi yëpp soññi fàttali sant ñetti yëf yooyu mooy li nga xam ne saa su ne moom lay jëmale ci bokk taalibe yi kon noo ngi ñaan bokk yëpp ñu déglu taataan te xam ne lépp lu bàyyikoo ci moom rek jëm si ci nun lool mi ngi mel ni taw bii di door a noppi ci nun noonu la la demee njëriñ la noonu la demee ci ñëpp kon noo ngi koy déglu. moom mi ngi gën a nuyu mbooloo mi yëpp ñi ngi fas yéene teewlu ni ko Moustapha Diatra waxe fan yi ñu jublu ba ci fukki fan yi ak juróom-ñett nañ fas yéenaa teewlu bu baax fas yéene jëfe ndigal mu ko diglee woon mi ngi digal mbooloo mépp ñëpp santale ko yàlla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 nga gën nga jublu ci gën a yeesal sa jaayante ak sëriñ bi gën a fas yéene naa def ndigalam ci santale ko borom loolu moo ci jiitu fan yii yëpp nag itam nu gën cee góorgóorlu def suñu itte yëpp muy sunu boroom. sunu yitte sunu yëngutu yëpp itam. sunu yëngutu nu jëme ko rek. ci jàng alquran. jàng xasaayit. feeg bis ba. feeg yitte yëpp. sunu yitte yëpp. jigéen mag ak ndaw. ku man na nga def sa yitte yëpp. na nga ci jiital jàng alxuraan jàng xasida ñi nga xam ne dañuy kuréel nañ ca nekk seen kem kattan ñiy durus nañ ca nekk seen kem kattan lépp lépp lu ñu jubloo ko sante sëriñ santale ko sëriñ bi ak sant ak sant jëmmi sëriñ bi ci boppam sant ko jëmmi mu jooju moom sëriñ bi loolu mooy li ci gën a am solo loolu li ci dolli ko nag ñun ñëpp gën a jëfandikoo gën a jëfandikoo teggiini taalibe teggiini taalibe ci suñ bopp bopp ak mboolem gan ñi fi ñëw na ñun ñëpp nañ jëfandikoo teggi ni taalibe suñ digganteek sunu bopp suñ digganteeg mboolem gan ñi fi ñëw loolu loolu yi lu ci munta ñàkk la ndax teggin mooy li gën lépp loolu alhamdulilahi rabbil alamin ku ne xam na ko ci nituk sëriñ bi moom teggin kon nanu maasi nun ñëpp di ko def jëfandikoo ci suñu diggante di ko teeroo it gan ñi la dolli ko ci loolu nag nañ ko doon waxee ci gannaaw rek or mooy dëkk bi or dëkk bi na ko ñëpp na ko ñëpp bàyyi xel te xam ne dara jiituwu ko or dëkk bi mooy ormal sëriñ bi ku ormaalu dëkk bi ormaalu sëriñ bi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 lu ñu mën a yëngatu. yëngatu ci sëriñ bi moo ko gën. ci sëriñ bi moo ko gën ci ñoom. kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax. kon ñoom ñoo war a def seen bopp sax. ñoom ñoo war a ndaw yi ñoo war a sàmm dëkk bi. lu fi sëñ bi bëggut. lu ñu fi gis. war nañ caa def seen yitte. te boole koog yar ak teggin ñoom ndaw ñi. ñoo war a sàmm dëkk bi ci lépp. mën na maa yem foofu Cheikh Bass eggale li ci des li ma ta wax lépp jox nañ ko ndigal mu wax ko nañ góor gi góorgóorlu ci cant gi rek góorgóorlu ci sàmm orma ji loolu rek la bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alhaadi alamin sayyidina wa mawlaana Muhammadin al-makiin wa alaa aalihi wa sahbihi zawi ridwaani wa ci ndigalul sëriñ bi ci kàddu yu tedd yi nga xam ne yëkkati na ko léegi muy kàddu yoo xam ne matale na sëkk te jot na sëkk kon liñ ci dolliwaat tuuti mooy fàttali rek bis bi ni ko sëriñ bi waxe léegi altine fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom lay doon incha allah mooy bis bi nga xam ni ci la ñu war a amal màggal gi kon nag sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp ginnaaw bu mu ko yëgalee ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi di njëbooru sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem ñi nga xam ne seen maam ya sëriñ Tuubaa moo leen defaroon bayu ci kenn ba wàcc ci taalib yi nga xam ne ñoo seenu njaboot nga xam ne bis bii ñoo koy def ngir jëfe ndigalu Serigne Touba ginnaaw bu loolu jàll it mu ngi koy yëgal di fàttali ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal lislaam ji yëpp kon Serigne bi nee na mi ngi leen koy fàttali fas ko yéene ànd ni ngi ko daa àndee ak yéen di fàttali tuuti rek na ci bis bii nga xam ne mooy bisu màggal gi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne. amuñu lu dul moom ndax mooy bis bi nga xam ne bu Serigne di demutoon ci géej gi kon tey kenn du gore kenn du moom sa bopp kon bis bii moo ñu tax a jot suñ bopp kon Serigne bii ne mi ngi koy fàttali ñëpp di xam leen nit yàlla yëpp bis bi nga xam ne ci la leen euh, suñ borom tegum nattu wala ca sabab sa taxaw mu teg leen ko li ci ëpp ci koy jeexal boo xoolee. yonent yàlla Yuusuf am na tom mi ngi tàmbaloon ci gént inni raaytu ahada ashara kawkaban wa samsa wal xamara raaytuhum li saajidin waaye ba natu bay jeexit mi ngi jeex ci gént ci firi gént suñu borom doo ko xamal xam-xamu firi gént wa qaala maliku iitooni bihi falammaa jaahu rasul qaala rja ila rabbika fasalhu ma baalu niswati lati qataada aydiyahunna ba ci mujj ga mu wax ne qaala ij'al li ala xasaa'ini al-ardi inni xafisun alim kon foofu la natt bu jeexee boo xe boo xoolee yonent yàlla Moussa bi mu gënee àdduna wa awxaynaa ilaa ummi Moussa an ardihi fa izaa xifti alayhi fa alqihi fi jam wa laa taxaafi wa waaye ba natt bi tàmm da ko wax ne ko ci géej gi waaye bi natt bi jeexit mooy bi nga xam ne Firawna sonal na ko. fa atbaahum firaawnu wa junuuduhu baxyan wa adwan xataa izaa adrakahu alxaraqu qaala aamantu annahu laa ilaaha illa llazii aamanat bihi banuu Israa'iil rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam itam matt bi mi ngi tàmbale woon ca Makka ca Kaaba ga muy julli yéefar yi di ko fekk di ko fitnaal waaye bi muy jeexee ci Fathu Makka foofa la taxaw di wax ak ñëpp di ko dégg kuffaaru Makka yëpp ñëw sukk jëbbali ci moom Serigne Touba it yàlla def bis bii ci la nattu bi tàmbali woon mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci Mbàkke Baari mu dem ngir la Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ay at yu bëree bëri nag mu jóge fa ba dem gànnaar ba ba dem ci yéen ba ñëw njaareem ba am fa lu mat juróom-ñaari at ba 1918 ndax nattu bi daa def saa su waxtu bi accès lu ñu ko ma sante ci nattu rek bu dellusiwaatee ñu teg ko mbooleem lu ñu toll cim nattu ba ci at mujj fa nag sëriñ bi du ko foglu ak di ko waajal suñ borom xamal ko ne nattu yi jeex na ak pay ci des ba adduna di tukki itam nan nattu yi daa demee rek pay gi na lay demee saa su agsiwaatee luñ la masaan jox ci ci ci ci ci xéewal rek dañ la dañ lu ko ëpp kon bis boobee nag ci la Serigne Touba digle ci 1918 ci la xëy xam ne ne suñ borom xamal ko ne natt bi jeex boo bu agsiwaatee na ko ci ñëpp sant la yàlla. di tàmbalee ci ginaar ba ci gileem kon loolu mooy bis bii nga xam ne ci lañ bi ba yàlla def mu agsi fii tey mooy bis boo xam ne nag lépp lu ñu am rek ci ko amee kon sëriñ bi ne mi ngi ci soññ bokki taali bi yëpp ñu gën koo fonk te xam ne boo xoolee ci mbindi sëriñ bi fu bari sëriñ bi wax na ko fa fustu la daa galwaa waa inde ba afali ma bi uniru kulla ma afali ci la suñu borom leerale mboolem palaani palaanet yëpp ci àdduna waxaat na it ne alaana lil quluuba quluuba wal abdaana man qaada lii fii baladil buldaana kon wane na ne màggal gi àdduna sëpp danañ ko ci aussi kon loola rek mooy li agsi nii kon sëriñ bi ne mi ngi ci soñ ñëpp ngir xam ne màggal gi moom borom defaral na ko boppam bërëb aajo ju fajoo lu tàbbi ci biir ñaan ko nangu la na ko bëggee saasu su agsee ndax waxoon na ne àjjana amatu bis waaye buñ demee ba ëllëg képp koo xam ne daa nga sonn ci bis bii boo ak sawaatee da ngay xewal guddal ko ci yow kon nag loolu lu ci waay def rek sababu mu koy kon nag ñi ngi ñaanalaat bu baax sëriñ bi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ba yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéey sëriñ Tuubaa te yitteem jëpp weesu liggéey sëriñ Tuubaa loo ko mën a ñaan loolu loolu ngërëmu sëriñ Tuubaa doo dégg mu ne la amin ngërëmu sëriñ Tuubaa rek ko ñor kon nag ñu ngi koy ñaanal ngërëm suñ Tuubaa loolu yi nga xam ne kenn nattablu ne am na ko yàlla na yàgg lool ci barke suñ Tuubaa ndax lu fi gën a rek mu nekk sagu yoonu murit lu fi gën a yàgg mu nekk sagu lislaam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu biya wali نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود kadri abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su ay xibaar yu wér te aju ci réew ak ci bitim réew